bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbi wa man wala asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñi ngi nuyu mbokk yi seetaan seen 24 actu di rafetlu ñëw bi ngeen ñëw fii yëkkati ay jéego ba agsi ngir ñu waxtaane lu jëm ci màggal gi ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci lool jëf euh, wax ngeen dëgg màggal gi bu jubee xam ngeen ne ñëpp xel yëpp day dem ci Touba ak bis bu màgg boobu di fukki fan ak ñett ci weeru safar Touba nag nii mu mel nii melu ko woon kon jar nañu xam fu mu tàmbalee Touba barab la boo xam ne mën nañoo wax ne kenn mësu koo mësu koo dëkkee mu doon barab boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala moo ko tànnal Serigne Touba ndax Serigne Touba. day wax ne barab bii li tax mu fonk ko mooy ñëw fi ngir seet ba fu neex a bayee wala fu neex a sàmme waaye dafay ñëw ngir jaamu yàlla ak dundal sunna Muhammad sallallahu alayhi wasallam kañ la ko sanc nag mooy sëriñ bi mu ngi wootee Mbàkke eh, Kajoor yoon wi nekk fa ab diir bu gàtt ñëw Mbàkke Bawol nekk fa ab diir bu gàtt ñëw sanc Daaru Salaam bi mu sancee Daaru Salaam diir bu gàtt la fa def sanc Touba ci 1888 euh, ba muy sanc Touba it moom moo doon wër Touba jàpp naa ne histoire boobu ñu bari dégg nañ ko moom moo daan beru di def ay xalwa ba suñu borom wan ko pàkk bii nga xam ne tey mooy Touba mu sanc ko Daaru Salaam gee mu nekkoon mu jël kër ga ak njaboot ga fa nekkoon ñi ñu ñu ca ñu ca ëpp jébbal leen maam Cheikh Anta mu yor daara ja ak dëkk ba moom mu ñëw sañ ci Touba ngir li nga xam ne moom la doon woote muy defar doomu yi yar leen yóbbu leen ci yàlla dafa laaj barab boo xam ne day dogu dafa laaj barab boo xam ne bu sell la moo tax Touba gi nekk dëkk bu sell boo xam ne suñu sëñ bi fi la njëkk yare maanaam génération yi njëkk yu ci baree bari ci juróom-ñaari at yi mu fi def ndax xam nga ne 88 la fi la fi ñëw ba 95 95 xam nga ci la fi jóge def ci Mbàkke Baari ba mu sañcee Mbàkke Baari muy Touba Jolof diir bu gàtt ci la yi xew-xew mu dem ci tukki bi bi mu sañcee Touba da ci am loo xam ne euh, kilifa yi nettali nañ ko sëñ ma Lamine jóg ci téere bi nga xam ne mooy Irwa un Nadim nettli na ko jële ko ci sëñ Mbàkke Buso euh, muy mu doon sëñ bi bi mu nekkee fii ci Touba da ko nosoon organiser woon ko organisation boo xam ne ay daara la ko defoon ñi nga xam ne da leen di yar ak ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañ leen doon yar waaye kenn ku nekk dafa am fu la féetaloo woon bëggutoon jaxasoo am ñu dem ba mujj am ñoo xam ne am nañ soxna mu dem ba nga xam ne am na ñoo xam ne ñi ngi jóge fu nekk di ñëw tuubaa mu mel ne nos gam nosoon ak éducation bi mu fi doon def maanaam éducation spirituelle bi mu fi doon def di yar nit ñi am na tuuti loo xam ne mel na ne soo xewoon na ca ca nos googee mu digle euh, sanc Mbàkke Baari waaye bàyyi fi nag euh, sa samp sëñ Dame Abdourahmane muy jàngale alxuraan mu samp sëñ Mbàkke Buso muy jàngale xam-xam ak sëñ maam Thierno Birahim muy jàngale xam-xam euh, sëñ Mbàkke sax dafa wax ne dafa da ko waxoon ne ko moom na def na na na toog Tuuba képp koo xam ne bëgg naa ñëw Euh, Mbacke baari jaar tubaa sëñ Mbacke mooy xool ba xam war na ko war naa jàll fekki ko Mbacke baari wala koo xam ne euh, ci man mën naa yem ci moom euh, waaye sëñ bi ni ma ko waxee rek fa sëñ bi nekk mbooloo mi fa lañ jublu si nga xam ne dañoo mujj ñëpp kenn jaar si wut waaye ñëpp jawali foofa loolu nag mooy sabab bi nga xam ne mën nañ koo jàpp ci zahir waaye ku ne xam ne buñ ñëwee ci li waral tukkib géej gi ak li nga xam ne mooy baatin bi dëgg-dëgg am na ci loo ci mbirum baatin la ndax sëñ bi euh, bi mu dogoo ci liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaayanteeg moom xam nga sëñ Abdul Ahad radiyallahu anhu nettali na ko ca xalwa bi woon ci daarul xudus ci yonent bi feeñu ko waxanteeg moom la mu waxanteeg moom mu jaayanteeg moom natt yi nga xam ne moom la ko suñ borom waroon teg ca Touba ñaanoon na ko ba natt du ko maanaam nattu bo ak coono yooyu Touba suñ borom aaraloon na ko nanguloon na ko ñaan yooyu moo waral bi mu waree sóobu ci natt bi loolu dafa dafa dafa laajoon mu war a génn Touba dem beneen dëkk nga xam ne kon ñaari wet lañ koy xool angle bi nga xam ne mooy angle zahir bi nga xam ne mooy sëñ bi nos gi mu nosoon di di yare loola mujj na nos googu mbooloo muy ñëw di bari ba nam ko bëggee woon ca wéet ga ameewu ko ni mu war fay jóge sañ ci Mbàkke bari waaye nag ci biir ci wàllu baatin buñ ko xoolee mooy dafa waroon a tàmbali ab nattu boo xam ne da cee waroon a am daraja yu kawe kawe kawe ni mu ko jaayante woon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xalwa bi mu mujj def ci daarul xudus ba loola moo waral bi mu jógee Mbàkke Tuubaa ba sanci Mbàkke Bari ay maanaam shawwal la fa sanci muy buñ muy weeru korite waaye bañ demee ba ca weeru safar wi gis nga ci la xew yi am ba jóge fi dem Ndar nga xam ne kon dafa mel ne génn gi Mbàkke Tuubaa sart la woon ci nattu boobu war a mën a tàmbali dañ ciy boole sax ne dafa bokkoon euh, nag ni ko maanaam lii taxoon nattu bi tàmbali it boo gisee <coughs> nijaayam dooju di sëñ Busoobe nga xam ne mi ngi woon Mbàkke nekk fi moom it di ko suñ borom rus di walli yu mag a mag bokkoon na ci euh, maanaam bu fi nekkoon di ko ñaanal kon mën naa am natt boobu du ko <laughs> tege moo tax bi bi sëñ Busoobe nelawee mu génn tuubaat sañ ci Mbàkke euh, baari ci la nattu bi tàmbali. nasaraan yi yóbbu ko moom it waxtu wu nekk dañ koy xool ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari sabab lay am day am sabab boo xam ne mën nañu wax mooy sababu zahir bi nga xam ne kuy analyser ak a jàng xool histoire nattukaayu histoire ak xew-xewi jamono mën nga ci mën nga ko cee natt ba ne lii moo taxoon ñoom tubaab yi génn ko waaye mbirum sëñ bi it wàllu baatin gi dafa am ay sabab yoo xam ne ci baatin la bu xoolee sabab baatin yi. juñu naa ko léegi mooy dafa jaayante woon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne ubayon yowma rasul al bi xidmatin wa asalullah al wafa wax bayit yu bëree bëri ni mu jaayante woon ak yonent bi sallallahu ci eh, liggéeyal ko liggéey boo xam ne nag daraja yam ca doon wut dafa waroon a ànd ay nattu nattu yooyu nag tukki bii mu tukki ci la ko yàlla jaarale ba jox ko ci xéewal yam ko jox dañuy wax ne Cheikh Saliou Mbacké radiyallahu anhu daana wax ne tubaab yi bu seen yéene rafetoon ci yóbbu gi kon dinañ am daraja yi kaw yu tal ne ñi àndoon ak sëñ bi su ñoom suñ maam Thierno ak ñu ni mel daraja yañ am ndax liggéeyal nañ ko liggéey boo xam ne ci yóbbu gi moom lam ci amee kawe na waaye nag comme seen yéene rafetutoon mooy seen yéene rafetutoon ñoom waaye def nañ ci loo xam ne bu fekkoon ne da seen yéene ju rafet lañ ci jublu nga xam dañ koo bëgg a fu mu wéete ba mën a jaamu yàlla ba def li mu bëgg def kon day mel ne dañ ci am tuyaaba nga xam ne kon ci wàllu baatin sabab bi sabab bi baatin mooy dafa jaayante woon wala war a war a war suñu borom war ko tegi nattu nattu yooyu moo waral tukki bi nga xam ne eh, ci la ko jaare lim am lépp ci la ko am ba tax sax mu jàpp ne kon bis bi mu génnee di dem bis boobu bis la boo xam ne bisub sant yàlla la bisub xéewal la ci moom ndax lim am yooyu lépp mi ngi ko ta at mi ngi ko amee ci liggéey bi nga xam ne ci bis boobu la tàmbali loolu kon mën nañ koo jàppee wàllu baatin waaye buñ ñëwoon ci maanaam mën nañoo wax euh, géopolitique ci jamono jooju xool tubaab yi ñoom lan moo leen taxoon a jóg ak sëñ bi lim doon woote ak nim doon yare da ngay gis ne euh, tubaab yi ñoom dañoo ñëwoon bëgg domine dominer euh, réew mi li jiitu ay comptoir lañ fi amoon di gere seeni commerce mais dañoo dem ba 1880 1850 ja ci jamonoy bu ci lañ décidé nag occuper Sénégal gi yëpp buur yi fi nekkoon yëpp ñu daaneel leen samp ay chef de canton nga xam ne daal administration directe lañ doon def suuf si yemuñ ci loolu ñu jàpp ne sénégalais yi dañ leen war a soppi def leen assimiler leen def leen daanaka soppi seen culture soppi seen pas-pas def leen ay ay ay ay ay daanaka ay nasaraan loolu nag seen yéene la woon ci réew mi waaye sëriñ bi lim doon yar ci taalibe yi yar ci ñoom pas-pas gëm yàlla ñàkk a ragal kudul yàlla ñàkk a déglu digalul kudul yàlla ba nga xam ne booba gis nañ ne sëriñ taalibe yi mu yar lim leen di digal rek la ñuy def déglootuñ keneen ndax lim leen wan doy na leen sëkk ragalu ragaluñ kenn loolu it bi mu amee nga gis ñi fi nekkoon te yor nguuruk nguuruk àdduna di ay nekkoon ay buur ñu samp leen gis nañ ne ñoom liñ bëgg ci nit ñi ak li sëriñ bi yar ci ñoom wuute na ba tax ñoom it ñu jóg di rambaaje di wax euh, tubaab yi naan leen kii kat lii muy woote bu bu màggee ci seen kaw la jëm te fekk booba am na ñu jiitu ñoo xam ne xeexoon nañu tubaab bi ci niti diine ba ba ba tubaab yi sonn ci ñoom lool kon buñ gisee koo xam ne li muy woote ak li muy yar moom bokkut ñoom liñ bëggoon a def ci nit ñi day mel ni kon ñaari projet la yoo xam ne mënuñu woon a ànd nga gis ne sëñ bi moom ba muy dindi complexe ci nit ñi boo demee ci Masaalikul Jinaan nga xam ne Mbàkke la ko taalif xam nga ca lay waxee ne walay sa yujibu sawaadul jismi safahatal fatawasu wal fahmi maanaam der bu ñuul taxul nit ki ñàkk xel taxul mu mu gàtt xel taxul mu ñàkk intelligence ba ba tax du mën du mën a dégg pour booba mi ngi doon li ñuy wax décomplexe nit ñi di leen gëmloo seen bopp di leen gëmloo ne fu ne mën ngeen faa àgg loolu nga xam ne euh, tey ñi sëñ bi doon yar rëgaluñ tubaab bi rëgaluñ buur yi fi nekkoon euh, xam nga sëñ Moussa Ka ma ngay wax ca ca ca ca ca diggante teeñ tañoor bam ba dajale euh, magi murit yi di leen di leen xupp ah xam nga ma nga ma nga naan sëriñ ma morom maanee ko tontu booba ne ko da ngay kàcc dañuy dem Touba folli la tey tekki sa ndomb ak tànk moo gën a yomb lii nga wax noo lànk xam nga bu ñu demee ba kon ki ki nga xam ne dañ koo jàppe woon euh, baadoo la nga xam ne sax daawul ñi mee taxaw ci kanam buur di ko jàkk xool daan sëgg ñu mën a taxaw tey sëñ bi yar ci ñoom ak ngëm yàlla gëm yàlla ak ñeme aku fit bañ mën a taxaw di wax loolu ci mpénc kon ñu gis ne kat kii kat lii mu bëgg ak ñoom lañ bëgg ci nit ñi safaanoo na ba tax na kon tubaab yi mën nañ ne loola mooy sabab yi dëgg dëgg dëgg dëgg waaye xamoon nañ ne tuuma yañ bind nga xam ne rapport Leclerc bu nga xam ne ca la def euh, yu baree bare ay tuuma ñëpp xam nañ ne ñoom xamoon nañ ne tuuma yooyu du dëgg waaye comme administration la mënuñoo jekki-jekki jël ko yóbbu fokk dañuy def ay rapport fokk dañuy bind ñu justifier ko waaye seen seen seen xalima sax nax na leen ndax ca biir rapport ba dañuy wax ne nañ ko yóbbu Gabon fa nga xam ne ay jàngaleem ay la muy woote du fa mën a tasaaroo nga xam ne kon wax eh, da nga cay dégg ne kon mu doon woote ak lam doon jàngale moo leen gêné waaye du woon xamoon nañ ne yurut ay arme xamoon nañ ne préparer wul pour xeex ak ñoom ndax sëñ bi moom li mu doon liggéey teeloon naa xam wax wax fa mu jëm ndax dafa waxoon ne man ci xam-xam ak defar jikko yi ak defar ak yar nit ñi ci laay jihaada inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan xadiman wal muhaymin shahidu man sama jihaad sama xeex du xeexu arm loola nag moo gën a dansé ci tubaab bi ndax bu dee arme ñoom amoon nañ ko bu doy ku ku jógoon taxaw ne damay xeex ak ñoom ci ay arme ñoom dañ ciy sant ndax am nañ arme boo xam ne yow amoo ko bu dee ay ay xeej ay fett yooyu nga yor ñoom ñu am eh, bu boobaa bal réel bu boobaa eh, du am du am eh, équilibre sax du am kon sëñ bi fi mu jëm nag moom dem jëm ci xol yi defar nit ñi defar mentalité yi yar nit ñi def ci ñoom gëm yàlla loolu dafa nekkoon loo xam ne mu ëppoon danger par rapport ak euh, projet tubaab bi nga xam ne dañu bëgg occuper occuper réew mi coloniser ko not nit ñi soppi seen pas-pas soppi seen i xel soppi seen culture. kon moo tax mën nañoo wax ne sabab bi zahir si mooy rambaaj yi nga xam ne buur yi buur yi fi nekkoon wala lenn ci ñoom wala lenn ci ñi ñi leen fi wutu woon ñi ngi ko doon jaxas sëñ bi ak tubaab bi tubaab bi ragal gi mu ragaloon ne sëñ bi mën naa am mu yëkkati maanaam bu li muy woote bu màggee li li bëgg ci réew mi munu koo am mën nañ ne moo waraloon tax ñu déporté sëñ bi ñoom nga xam ne déportation lañ ci jublu génne ko foo xam ne li muy woote day fay ni nga xam ne ni lañ jaaroog ñu baree baree bari ci Afrique Afrique réew yu bari dégg nga ay ay résistant wala ay ay ay ay jàmbaare ñoo xam ne ba tubaab bi fa leen yóbbu fa lañ des dellusi wuñ loola it lañ bëggoon ci sëñ bi moo tax sëñ bi ci asiru maal abraari mu wax ko ci ne man bi may dem maa ngi dem ànd ak gaa yu baax yi kon mooy tukki baatin bi nga xam ne ci la nekkoon waaye booba wa zanna lay daa anni hunaka asiru waaye booba noon bi moom mi ngi jàpp ne moom prisonnier laa ci loxoom nga xam ne kon Eh, wàllug zahir gi ñoom jàpp nañ ne prisonnier la dañ koo jàpp waaye wàllug baatin gi moom dafa jogoon di dox jëm ci suñ borom subhanahu wa taala tukki boobu kon ni ma ko waxee mooy nga xam ne sëñ bi lim am boo demee wax na ko fu baree baree bari wax ne li mu am ci tukki bi da ciy sant yàlla waaye du ko tudd wane ne suñu borom lim ko ci defal ak mbaax ak suñu borom la fa man nii fil bahri lil jahdi zaqilan faqad jaani fil bahri juudul mukarrami dafa wax ni ñi ma sànni woon ci géej gi ngir bañ ak weddi ci géej gi ci la ma mbaaxuk ak tabuk suñu borom dikkale maanaam moom lim am dafa jàpp ne mbaaxuk suñu borom la akuk tabeem la ndax suñ boroom moo ko jàppale suñ boroom moo ko defal tawfiq suñu boroom walbatiku fay ko ay xéewal yoo xam ne moom nee da ko ciy sant rek. kon nga xam ne bis boobu muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar nga xam ne moo tolloo woon ak 10 août 1895 ci la sëñ bi génne Mbàkke Bari ci la nattu yi tàmbali bis boobu it ci la waxoon saabu bu dellusee képp koo xam ne mbégam sa mbég la nga santale ko ci suñu borom subhaanahu wa taala kon bisu 18 bisu màggal gi ndigalul sëriñ Tuubaa la lu jëm ci taalibe yëpp lu jëm ci jullit yëpp ndax sëriñ bi kat lim am yëmalewu ko ci boppam yëmalewu ko ci njabootam waaye lim am ngir jullit yépp la woon waaw ijaan rujuu'i ila qawmi saadatna wal takfini yawma jam'il xalqi nirana kon sëriñ bi lim am moo tax Cheikh Cheikh Saadu abihi ba mu koy ndokkeel dafa ndokkeel diine lislaam hani an lisa diini alqaribi alladi gada yatihu sururan minkum waftiqaara kon màggal gi ndigal la loo xam ne dañ koy def ngir santale sëriñ bi suñu borom subhanahu wa kon loolu mooy sabab maanaam ñu di ko ndax sëriñ bi dem na ba ñu bis lu yàgg ba njaareem ci njaareem ci la joxe ndigal loolu ndax xam nga njaareem 1912 la fa dem. Touba Touba 1888 la ko sanc nekk fa juróom-ñaari at ba 1895 mu jóge fi dem ci géej gi dafa juróom-ñaari at ak i weer bi mu dellusee ñu yóbbu ko gànnaar ba mu jógee gànnaar mu dem ci yéen nga xam ne ñu def ko euh, résidence surveillée ci yéen ba mu jógee ci yéen ci la ko tubaab bi jëlee ci yéen ci 1912 indi ko njaareem kon nga xam ne ñibbisi na ba am ay at mu ba mu nekkee njaareem ca la doog a digle nag ne bis boobu ca loolu lu ko suñ borom xamal la ah ne ko nattu yi jeex na léegi bis boobu nag ci la sant ci la digle bis bu ñëwatee kenn ku nekk li nga man nga def ko tàmbalee ci ginaar ba ci gileem niñ koy waxe kon loolu mooy sabab bi waaye nuñ ko war a defee niñ ko war a defee la ca jiitu mooy ñu xam ne ak cant la ci cant sëriñ bi ne woon na ñett la ci xol ci làmmiñ ci jëf li jiitu ci sant mooy nit ki yëg ci xolam ne xéewal yim am yàllaa ko ko jox mooy munaim ca ki maanaam reconnaissance boobu ngay def ci sa xol xam ne yow du sa ngóor ak bopp waaye ndimbalu suñ borom la may ko suñ borom la moo jiitu ci sant ñaareel ba sant dañ koy wax ci sa làmmiñ sant yàlla waaye sant dañ koy jëf bernde gii feeñal ak cant la maanaam bu doon ci waxin du ngir noos rek waaye ni ko ndaw ko ndaay jàppe waaye feeñal mbégte feeñal mbégte la bég la kon li jiitu mooy ki ngay sant da koy sant ci lim bëgg yàlla la sant yàlla kon da koy sant ci lim digle moo tax Sëriñ ba waxoon ne dama yéene sant yàlla waaye waxoon ne nag dama koy sant ci farata ak sunna ak lim daganal moo tax bernde yi bu jàllee li gën a fës ci sant gi mooy tudd yàlla ak jàng alquran moo tax gis nga euh, màggal gi bu jubee dañuy digle ñuy jàng alquran di jàng ay xasida bu bis bi ñëwee ñuy bernde di ziyaare nit ñu baax ñi di jokk bokk loolu lépp nga xam ne jëf yu baax la noonu lañu ñu war a dundale màggal kon recueillement la war a doon dellu ci suñ borom la fàttaliku xéewal yi nga xam ne yàlla defal na ko sëriñ bi nga xam ne ñëpp dugg nañ ci biir xéewal yooyu waaye ñu war a bàyyi xel ne kon euh, du rek ab xumb-xumb te sant yàlla ak jaamu yàlla la kon da koy defe ni ko yàlla bëggee waaye ren rek boo li boo gisee bi safar teroo am na ci yoo xam ne dangay xam ne ñii kat xër la ñuy def waaye li ñuy def dëppoowut ak li sëñ bi bëgg ndax bëgg koo soppi sanru carnaval wala loo xam ne am pola ah, di sànni ay pétaar ak yu ni demee loolu mooy ki koy def ku mën naa am ku xër kuy wane mbég la waaye mbég da koy wane ca anamu ka ngay sant lam bëgg nga defee ko noonu ci sëriñ bi moom waxoon na ne fo fowut foluwut kon màggal gi dañ koo war a jàppee ne sant yàlla la sant yàlla ak jaamu yàlla la kon dañ koo war a def ni ko sëriñ bi diglee dañ ko war a def ci yar ci teggin ci teewlu ci moytu lépp loo xam ne nuru na am po wala mu nuru ak yàq dafa am lu mat lu mat a lu mat a teqale ndax xam nga mbirum mbokk lu yàllay def la ndax nit ki suñu borom moo koy tànnal fa muy feeñe moom du leen tànn kon def defub suñu borom ku ne xam ne sëriñ bi du ko dindi te yonent bi alayhi salaatu wasalaam lislaam lim jàngale ci mbokk ci jokk mbokk loola ku ne xam ne sëriñ bi du ko dindi ku ne xam na ne sëriñ bi ci doxalinam gis nañ ay mbokkam fi mu leen tegoon waaye li war a jaawale mooy dafa waxoon moom ne lim yor luy jaay la sëñ Fallou radiyallahu anhu dégg nañ mu nett lu ko ca Jolof moom ko wooyee mook sëñ Modou Moustapha sëñ ma sàmba sëñ Mor Roqaya wax ne du ma bàyyi kenn du ma nijaayi kenn du ma magi kenn waxin la maanaam li ma yor du ak mag doon sa mag mooy tax nga jot doon sa baay du tax nga jariñu ci kon ku ci bëgg a jariñu dangay jaayante wuti ko léggéey moo taxoon sëñ Fallou radiyallahu nu wax ne moom bu mu demee ba njaareem mu bind as këyit wax ko ci bind ko ci wax ne ko biatu bu nu watiya bil irada sama njureel gi nga xam ne liñ li li liñ may liñ may tudde ak mbaay li may tudd liñ liñ lay li may liñ may tudd la ci tudd muy ak njureel loolu jaay naa ko jënde ko ak pas Pastef mooy ak taalibe ca it bu ma ko jaayee ba noppi damaa jël lépp defaat ko addiye kon loola da leen doon jàngal di jàngal ñëpp ne kenn ku nekk da ngaa war a góorgóorlu mhm. maanaam bañ bañ ne rek kon man sama waajur la wala sama mag la wala sama nijaay la wala nga jàpp sukkandiku ca mbokk ga ba li nga war a def defoo ko loolu kon da doon jàngale loola it noonu la ko njabootu sëriñ bi déggee woon ñoom kenn ku ci nekk da ngay dégg buy wax sax sëñ bi lay wax mhm. maanaam ku ci wax day mel ne ka muy wax ki muy wax moom taalibi rek côté aspect talibi gi rek la cay xool ñoom ñëpp koo dégg ci ay kàddoom sëñ bi lay wax sëñ bi nee na na ngeen fonk ndigalu sëñ bi nga xam ne ni ko taalibe yi waxee lañ koy waxe ñoom ñëpp seen ay ay taalibe lañ defoon seen bopp di liggéey ni murid yi liggéey di bay di joxe ku ne dégg na ko dañ doon bay di joxe li fi sëriñ bi bàyyi muy muy muy muy naalam bi ñoom ñëpp kenn ku ci teg da nga daan liggéey bay ba ba ba ba nawet bi sotti la nga ca daje lépp nga ñëw jox ko ki fi toogal Serigne Touba kon ñoom déggoon nañ loolu kon ñu bañ a jaawale mbokk gi nga xam ne yàlla daf koo def ñu war koo sàmm war koo jokk ak taalibi gi nga xam ne sëriñ bi moom dafa am lu ko suñ boroom jox mu war cee jox nit ñi war leen cee jaarale ci yoon war leen cee yar loola moom lu ñuy wut la mooy ndax yàlla la yàllay kese la yàlla jooju nag dañ da ngay da ngay da ngay jaayante waaye am pas-pas waaye jaar ci yoon wi nga xam ne moom la sëriñ bi digle bu ko defee bu boobaa nga man caa man caa jariñu kon ñiy wax sëriñ bi amul mbokk mooy taale gi moom du mbirum ak mbokk waaye nag sëriñ bi ku ne xam na ne suñ borom da koo tànnal mbokk yu baax mbokk yoo xam ne ay tànneef lañ woon moom mu fonk mbokk googu lool dundal ko lool waaye li ko fi yàlla defal du lu jafe bari na ñoo xam da nga daan dégg bañ wootee seen mbo seen mbokk leen njëkk a xeex waaye sëriñ bi mu wootee ay mbokk ko njëkk a wuy si ñi bokkal baay ñëpp dañoo wëlbatiku ay doomi baayam ñëpp dañoo wëlbatiku ànd moom jox ko seen bopp mu jaar leen fi muy jaaral taalibe yi defal leen li nga xam ni moom lay defal taalibe yi kon loola lu yàlla jagleel sëriñ bi la wala bokk bokk na ci lim ko jagleel. Euh, kon ginnaaw bu ñu yeesalee cant gi xam ne lii lu ci am solo la ndax lu loo xam ne lu lu baax la lay tax nit ki mën a jariñu mooy mu xam ko bu ko xamee xam nañ nam koy jàppee xam nam koy dundee loola mooy tax mu mën caa jariñu ndax kat mbirum diine dañu innamal amalu binniyaati la ngay jariñoo mooy na ko jàppee ci sa xol fi mu ne kii ñëw jàpp ne dafa tukki si dafa ñëw di ngir commerce si kooka dana fa dana amum commerce waaye ki nga xam ne dafa ñëw ngir wut si yàlla ngir sellal ab xolam ngir santale suñu boroom yàlla kooka loolu la cay am ki fi ñëw ngir agressé nit ñi ngir ngir ngir def naka su noonu bu fi ñëwee ay lor la fiy jóge kon kenn ku nekk la nga fas ci sa xol la yéene ja am moom la la yàlla di defal kon nag xam ne lii lu baax la lii ak jaamu yàlla la lii ak sant la suñu boroom sëñ bi la maam sant li sëñ bi suñu boroom la kon kenn ku nekk bu jàppee loolu danga xool na ngay ñëwee na ngay ñëwee ñëw ci yar ñëw ci teggin waaye nag déglu ndigal yi nga xam ne moom la sëriñ bi joxe ca nag ni nga ko waxee dañoo nekk ci jamono joo xam ne am na jàngoro ju nekk ci réew mi ñuy ñaan yàlla mu jële ko fi te ñu ngi am yaakaar ndax mi ngi wàññi bu baax waaye ginnaaw mi ngi fi ca jeexagul ca sëriñ bi lim joxe mooy nañ respecté mesures yi nga xam ne mooy tax wàllante bi du law kon loolu jàpp naa ne kuy ñëw war nga koo sóoraale dolli ko ci la nga daan sóoraale muy dugal lu yees yoo xam ne contexte bi moo ko indi kon daal ñi ngi dénk ñëpp ñu ñu ñu ci loolu ànd ak yar bi ñu war a yar ànd ak discipline bi ñu war a am waaye jëfe ndigal yi ni leen ko digale di ñaan yàlla nag suñu borom subhanahu wa taala nangul ñu li nga xam ne moom lañ ci yéene def muy santale yàlla santale sëriñ bi su boroomam ci xéewal yi mu ko defal ca suñu borom sàmm ñëpp aar ñëpp ñi ñëw ñëw ci jàmm dellu ci jàmm ñi fi nekk suñu borom defal leen jàmm ca kenn ku nekk la nga ca sonn suñu borom nangul la ko te jàppandal lépp ci ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa